ok bon nag euh, kii di Kane Mor. ay te ñu gis waa tamit lii la. Eh, mujj naa riis. c'est bon yéen ñëpp c'est di fay bu baax baax a baax sama xarit bi. ay te ñu gis sa teewaay ci bés bi tey euh, lan moo nekk sa digganteeg Mbathio. Eh, waa tey nag dama ñëw wuy si xale bu baax la Mbathio. nit ku baax ku am personnalité ku am valeur ku nit ñi reconnaître taxawaayam fii ci senegal waaye nag tey damaa ñëw ci bés bi ngir gunge si ku baax. man doomi Badaloo laa àndal mooy troisième njëkk mbàccu looloo ma tax a jóg moo tax ma jóg ndax ki tax ma jóg day koo xamante ne baayam statut la ci réew mi ndax man mi heure bu ma génnee rek farataa ma tax a jóg mbàccu war na maa tax a jóg waaye asuloo moom alaaji badaloo moo ma tax a jot tey moo tax ma ñëw gunge si ko njëkkal mbaaco la bëgg a def si yu baax te xam nga man baax sama yëf la moo tax ma gunge si ko waaw euh, mu mel ni tey liñ ko may takku na lool euh, barki démb sumb la woon sumbulu la woon euh, tey moom ana lan ngay dénk xale yi jigéen yi bëgg ci teraanga yi ah nañ góorgóorlu rek jigéen moom jar na fukk jar na ñaar fukk jigéen jar na fukk jar na ñaar fukk déggoo ma de jigéen jar na lu ne lii yëf daal mooy bu ñu xool som bi nañu xool valeur u jigéen bu kenn xool benn sob jigéen jar na fukki milliard jigéen jar na fukki million jigéen jar na téeméeri million sumbulu moomu ko jar jar na ko mbaacu mi ko jar jar na ko ñeneen ñi ci yoon wi te war koo jar yàlla nañu jar lu ëpp loola kese. yow xam nga ne dëkk bi ma buzz nag. non non non non gars yi boo jàllee. bu ma yow yow boo jàllee ma ñëw. Vieux waaw kooku sama rakk la sama xarit la dañu doon dañu doon kaf rek kaf la woon rek ndax man ndax man maîtresse ñooma moom sama ay yëf la ñu kon moom bu ñu ko ca boolee daf may gën a neex te loolu kaf la woon de ñi man defuñu ko ci tele bi te man bi ma juddoo ba léegi génnu ma dem ma émission kenn invité wu ma ku ma ma bañ ndax man li may liggéey du lu ñu ma jàngal don la ci man yàlla moo ma ko defal yàlla mi ko def nag moo tax concurrence ma kenn daan naa suma kenn ñëpp samay rakk lañu man fii ñaa moomay daaneel. mais sama artiste nag. kooku laa bëgg sama biir xol. mooy sama lépp moom. kon naa bala. waaw eh. eh. ah, bon nag kooku ni kan muy Mor wax dëgg yàlla di way Labane bon nag gis ni les belles images ak Paco ah, toutes les informations réelles ah, bon nag Asulo moo nag sunu xarit sunu soppe mi ngi noonu ah bon nag gis nga ni ah, lekk yëpp nag mi ngi nii nag ñu ngi koy rangelé ci oto bi ah, bon nag gis nga ni vraiment lépp loo xam ne rek wàllu ah, doomu aadama dañ koy jëriñoo.